الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيب قلوبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله gannaaw loolu yéen mbokki jullit yi الإسلام ngi السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته xam ngeen ne noo ngi nekkoon ci firi suratul fatiha kon incha allah taala tey ñoo ngi ci dërsu juróom-ñeenteel bi war a tàmbalee ci aayay ñeenteel bi muy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aaya bi nag xam ngeen ne ñaari genn wàll la genn wàll bi jëm ci sunu borom mais iyyaka na'budu أججمتي جامد وإياك نستعين دني وحسن في طيب إن شاء الله تعالى كي حاج بجن كسم برام تموي إياك نعبد إياك نعبد جملة جو أمد ولا لجو أخم دفع أمبو جملة لخ دفع إياك نعبد لني في رموي يو الدم يو يالا الدم لني جام بعد دفع أمبو جملة لجت بموي dinañ la jaamu yow yàlla dong la ñuy jaamu boo ko seetloo ëmb na wax goo wax ne dinañ la jaamu yow yàlla waaye tam ëmb na jeneen digle te mooy te duma jaamu keneen ku dul loolu la ëmb su ko defee kon ki jàng fatiha war na bàyyi xel ni am na ñaari mbir yu mu def bu jëkk bi mooy dig na sa borom yàlla kóllërante maag moom dig na ko ni ko dinaa la jaamu kon nag war naa fexe ba def ñaari yëf xam luy jaamu te def ko ndax bi nga ne yaay dinaa la jaamu te yow xamoo luy jaamu xamoo lu ñuy jaamu doo ko mën a def kon boo da nga ko war a xam waaye boo ko xamee da ko war a def leneen yow mi jàng iyyaka na'budu mooy da nga boroom da koo dig ni doo jaamu keneen ku moom kon nag war nga jàng li nga xam ne soo ko defalee keneen loolu ak jaamu lañ koy tuddee loola nga bañ ko defal kenn ku dul yàlla subhanahu wa taala loolu moo la iyyaka na'budu ëmb te fexe ba ba di wax iyyaka na'budu mu ëmb dinaa la jaamu te duma jaamu ku dul yow muy ñaari dikk yoo dikk sa borom yàlla nga di ko wax bis bu nekk ci julli ak ci fu dul julli ci booy fari fatiha ba nag nag sa dund li ngay def dëppoo wutal loolu masalan da ngay wax sa borom dinaa la jaamu ba noppi doo ko jaamu doo ko jaamu lu yaatu la wala du ma jaamu keneen ku dul yow te fekk di ko jaamu naam waaye tam yaa ngi def ci say jëf loo xam ne ak jaamu la ko sori ak tudde moom la ko jàppe li nga defal keneen ku dul yàlla loolu boo ko defee yaa ngi fen yaa ngi fen ku taxaw fi kanamu borom yàlla dik ko dara la nga ko dik war nga ko fexe ba matal ko fen mooy nga wax loo dul def boo ne yàlla dinaa jaamu ba noppi jaamu woo ko ndaxte xamoo jaamu wala xam nga ko waaye defoo ko ni mu waree kon kay fen la nag bi ci yées fen benn baaxu ci waaye bi ci yées mooy kon fen sa borom yàlla te dëgg-dëgg fen sa boo ko seetloo lu raglu la tey tam lu tiitlu la lu mat a bàyyi xel la dafa mel ne sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu jàngalee jéggulu gu mag goo gi nga xam ne moo gën a rëy ci jéggulu yi ñu tudde ko seydul istawfaar te mu wax ne wala mu jàngal lu jullit bu nekk di ko def suba ak ngoon ci bi ngay wax seydul istawfaar boobu yi te seydul istawfaar yaakaar naa ñun ñëpp xam nañ ko ndax te jàng nañ ko fi ci jàkk bi seydul istawfaar bi ñu koy wax bokk na ci wax ji ci wax wa ana ala ahdika wa waadika mastata'tu loolu boo jàngee suratul istighfar ci suba wax nga ko ci ngoon wax nga ko loolu lu dafa da wax ne yow yàlla maa ngi góorgóorlu ci li ma wóolaranteeg yow dinaa ko def te itam li ma la dig maa nga ca génnuma ca te ko def waaw mag mu toll ne yow buur bu rëy bu ne sa borom yàlla ngay toog ci kanamam booy julli di ko wax maa ngi maa eh, dinaa la jaamu te duma jaamu keneen ku dul yow booy jàng sayyidul istighfar suba ngoon di ko wax maa ngi ci la ma wólarante woon ak yow te mooy jaamu la te bañ laa bokkaale dara maa nga ca maa nga ca te fekk nekkoo ca loolu ay kenn la xam na ne sayyidna joo xam ne yaa ngi koy teewlu mu lay fàttali dig boobu nga digoon yàlla ba àgg ci naan ko la ma digge woon ak yow maa nga ca la ma la digoon maa nga ca génn ma kon boog loolu ñun ñëpp dañ cee war a bàyyi xel fexe ba dëggu ba dëggu suñu diggante ak suñu borom yàlla ñu koy ñu koy dig ñu fexe ba matal ko loolu lépp dafa ñëw ci iyaaka naabudu bu ko defee nag iyaaka naabudu ginnaaw ñaari jumla la benn bi mooy dinaa la jaamu bi ci def mooy du ma jaamu ku dul yow duma ma jaamu ku dul yow tawxid la tawxid mooy wéetal te la nga wax yàlla ne ko duma ma jaamu ku dul yow mais maanaam dinaa la wéetal ci jaamu la yow dong jooju tawxid mooy tawxidul ibada mooy wéetal yàlla ci jaamu ko moom rek ba nga jaamu keneen xam ngeen ne ci àjjuma yi weesu ci bi ñuy firi suutu fatiha jàngoon nañu ñaari xeeti tawxid jàngoon nañu tawxidu rububiya ولا توحيد الصفات والاسماء جاغون من ذلك التوحيد توحيد الذات والصفات والاسماء جاغون منكم جاغون منكم توحيد الربوبيه توحيد الذات والصفات والاسماء ما يريد يالله سنن لو سورني اكن لو كانني لولو فرام فايتي ورن منكم جاغون من اسم توحيد الربوبيه ويت يالله سنن مركب ما رب لو تم فرام فايتي ورن منكم ku ko ci amul bu ko ñaanee Maodo Diagne incha allah mu may ko ko ci kaset wala ci seede nu mu ko bëggee incha allah tey kon boog ñu war a jàng tawxid bi nga xam ne moo nekk ci iyaaka naabudu ndekete kon iyaaka naabudu ñaari baat la waaye dafa ëmb tawxid ju rëy tawxid ju rëy joo xam ne mooy tawxidul ibada ñu koy tudde yéen sa tawxidul uluhiya tawxid jooju nag moom la ñu war a jàng tey ji incha allah taala jàng tam li ñuy jëkk a jàng mooy tawxid jooju importance am am gu mu am solo teg ci jàng luy maanaa tawxid jooju teg ci jàng insha allahu taala nan la ñuy fexe ba jëfe tawxid jooju yal na yàlla dimbali ba ñetti tomb yooyu mën ko leer bu baax mu leer ci bopp jullit yépp ñun ñëpp ñu soppi suñuy fas-fas soppi suñuy doxalin suñu diggante ak suñu borom yàlla te jaamu ko ci ni mu ko bëggee ndax bu ëllëgee ñu mën a am njëggalam yal na yàlla nangu bisimilah abdullah mu ne wéetal yàlla goo ji ñuy tudde tawxidul ibada am ñu koy tudde tawxidul uluhiya yow mi nga xam ne yaa koy jàng li nga war a jëkk xam moo dina mooy tawxid ji gën a màgg ci xeeti tawxid yi te itam di ñuy jàng ñaari xeet tawxid yi jiitu woon tawxidu asmaai wa sifaat ak tawxidu uh, rububiya tawxid ji dong lañ ko doon doye حيتم توحيد جوج بن حنا موي توحيد العباده ولا توحيد الالوهيه بوكنا سي امبورطانس دي يالا دي فك اسمان سوف اك لي سي ديرم ني فك ني ني جيني اك توحيد الالوهيه دي دوغ نا تخون مو فك كو ها ها سن وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار سان بروم يالا نينا man ngay may sàkk asamaan yi ak suuf dafa bokkoon jël ak neen ñi nga xam ne mooy tubaab yu xaraam ñi nga xam ne ñoom xamuñu dara yëgu jul géej gi riir te dafa nañ ne ñoo ci ñoo ci nekk te yëguñ ay yëgul mbooyee lañu xamuñu lu xew ñoom dafa nañ ne asamaan ak suuf kenn sàkku ko te loolu ñoo ko teyaatoo mosu ñoo gis ab oto bu kenn defarul mosu ñoo gis ab ordinateur bu kenn defarul kon nag asamaan suuf xam nañ ne dañ koo sàkk waaye dañoo topp seen bakkan xam nañ ne dañ koo sàkk waaye daw responsabilité moo tax ñuy wax kenn sàkkut ñenn ñi di wax ah kay yàlla sàkk na ko waaye da koo sàkk bàyyi ko noonu sans borom yàlla nee na man sàkkuma asamaan ak suuf ngir neen dama koy sàkk lépp a taxoon yaakaar ne dama koo sàkk ngir neen nag moom la yéefar yi daf jafe waaye ngal la yéefar ya xasat nañoo alku ci naara jahannam yeneen ci yàlla musal feneen suñu borom yàlla di wax ne maa xalaqtu l jinna wal insa illa li yacbuduun dara taxul ma sàkk ak jinne lu dul ngir ñu jaamu ma dafa mel na aaya bu mujj bi dafa ñëw di tontu laaj bu na ci aaya bu njëkk bi di sama borom yàlla ne wa maa xalaqna as-samaa wal arda wa maa baynahuma baatila ñun yàlla sàkku nu asamaan yi ak suuf si si ngir neen dafa am lu tax ñu ko dafa mel ne aaya jooju dafa indi laaj bi laaj bi mooy waaw kon li tax ñu sàkk ko lan la diine di ko tontu ne maa xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun dara taxul ma sàkk jinne yeeg nii lu ngir bëgg njaamu aha te itam tawxid ji ñuy bëgg a jàng tey bokk na ci lii wane ak am soloom mooy moo tax jàngale ko ak woote ci moo tax yàlla yónni mboolem yonent yi mu yónni yonent yàlla Nuux yonent yàlla Ibrahim yonent yàlla yonent yàlla Muusa ak ak Isa ak yonent yi leen jiitu ak seen diggante yépp ñoom ñépp li tax yàlla lu yónni leen mooy bëgg ñu jëfale ñu ñu xam tawxiidu uluhiyya te jëfe ko kon boo xam ne kon am na solo mat naa xam te mat naa jëfe te itam mboolem yonent yi ngeen dégg ñu xeex ak ñoom noonu leen lor leen ñoom ñu ñu àndaloon dara war lu ñu lor ci benn yonent wala ñu xeex ko lu dul woote gu muy woote tawxiidu uluhiyya mu ngoog kon ba tawxiidu uluhiyya ñi ñu ñi ñu lor ci ay yonent mo mo ko waral ñi ñu alak xaw mu aad xaw mu xaw mu xaw mu samud ñi ñu alak ñu labal ko ndaxuma ma gànt gu ñu gànt tawxidu uluhiya moo tax kon taw tawxidu uluhiya lu am solo la aha yonent yëpp yëpp yëpp tawxidul uluhiya lañ leen yónni suñu borom yàlla moo nu ko xamal ci alquran bi mu ne wa ma arsalna min rasulin illa nuxi ilayhi annahu la ilaha illa ana faabudun yàlla nee na amul benn yonent bu ma yónni ndara damay wax yi ci moom ne ko na woo nit ñi te xamal leen ni laa ilaha illa ana amul kenn ku fi war a jaamu amul kenn koo xam ne ci jaamu ko dina lor da jaamu ko dina jëriñ te ñett koo jaamu dina lor ku dul man yàlla kon boog jaamu leen ma yonent yi yëpp loolu laa leen wax loolu sama borom moo ko wax kon bokk nañ ci yëpp tawxidu uluhiyya lañu la la la ñu woote ah te itam tawxidul uluhiya moo tax lépp lu sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam daj ci màkka tawxidul uluhiya tax ñi àndoon ak moom lépp luñ daj ci màkka tawxidul uluhiya tax xam ngeen ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sonal nañ ko màkka moog ñi mu àndal ba ñu mujj gàddaay jóge màkka dem madina tay waa màkka lañu te loolu gënalu leen neexu leen waaye xam ngeen ni bilal ibnu rabaa dañ ko daan sànnee ca naaj wa di fa aw doj mu diis ñu teg ci dënn bi da ko wax doo ci jëpp te te weddi woo muhammad te gëm laatal uzza muy wax ahadul ahad ahadul ahad ci naa di nàcc màkka wu tàng woowu yi xam ngeen ne sumayya ak borom këram yaasir ak seen doom ammar dañ leen doon mbugal ba yaasir ca la dee sumayya ca la dee ammar moo ci mucc te xaw naa dee door faa jóge ñun ñëpp tawxidu uluhiya dong la ñu doon jéem a dund ba seen i xeet bañ leen noonu leen moo tax ñu euh, euh, daj lépp lu ñu def te itam tawxidu uluhiya mboolem li yonent bu nekk màkka sallallahu alayhi wa sallam woote lépp lépp lépp tawxidu uluhiya dong mu woote santaani wu fa asaka santaani ku ku ku ku war weeru koor santaani wu fa ku aj màkka tawxidu uluhiya dong dong xataa julli sax ñu ngi wàcc ci at yu mujj yi bi nga xam ne bii mu ngi bëgg kon bokkee xadu ullahi yaa yoon ci woote màkk lépp sallallahu alayhi wa sallam ci la wax waxul ci mbiri sëy waxul ci mbiru état waxul ci dara dara dara xadu yé yaa aha kon boog li lépp daf ñuy won ne taw xudu tawxidu yé lu am solo la yonent yi daj nañ ci lii sayyidna muhammad alayhi salatu wasalaam daj na ci lii te it ñi nak ci sénégal wala ci àdduna bi te bëgg dund taw xudu tawxidu yé xeeboo ñu seenu ay coono yu mel nii ndax dañ koo doon ci seen i maam ndax seen i maam mooy kan mooy yonent yi seen i maam mooy lan mooy sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam kon boog ku ci nekkum Bilaal wala mu nekkum Yaasir bu mu ko bett ku ci nekkum Sumayya na ko dëkkandu ku ci nekk am am am am am Ammaar ibnu Yaasir tam bati na ko dëkkandu bu ko defee képp ku teg sa tànk ci yooni yonent yi noonu yonent yaa ngi fi faw ñu def la la ñu doon def nettagul seen tànk foofee yal ñu yàlla boole ci ñi nga xam ne dañuy tumaraan ci ànd ak islam kon boog tawxidu uluhiyya gu noonu noonu la amee solo mu def nag ñu wax lan mooy tawxidu uluhiyya te xam gi ne loolu mooy li gën a am solo mat naa déglu bu baax aha taw aha tawxidul uluhiyya mooy nga wéetal sa borom yàlla ci jaamu ko moom dong waaw wéetal sa borom yàlla ci jaamu ko moom dong loolu nag wax di gàtt la ji ëmb wax gudd wéetal sa borom yàlla ci jaamu ko moom dong loolu dafa ëmb yow mu jaamu yàlla loolu la jëkk ëmb yow mu jaamu yàlla te soo dee jaamu yàlla nga jaamu ko ca la sant kan mun ta jaamu yàlla ci li mu la santul nga xam ne kon ci jaamu yàlla te jaamuwul yàlla ca li mu ko sant day perte day sànq jamonoom da ngay fexe ba di jaamu yàlla te jaamu yàlla ca la mu la sant na mu la ko waxee yàlla li mu la sant mooy li mu wax ci alquran mbaa li mu sayidna muhammad wax sallallahu alayhi wa sallam wala mu def ko ci sunnaam wala kenn def ko ci kanam mu ne noonu la ñett yooyu muy sunna loo xam ne lii nag boo xoolee téereb yàlla bi doo ko ci fekk boo xoolee téere sunni doo ko ci fekk nga bëgg a wax na loolu ci diina ji la bëgg cee jaamoo yàlla loolu mu xam ne yàlla sant la ko kenn sant la ko doo ci am dara kon boog tawxid jooju li mu jëkk a ëmb ji li mu jëkk a mooy na jaamu yàlla te jaamu ko ci kitaab ak sunna ni mu ci ñëwee loolu mooy sabu bu jëkk bi ci tawxid bopp ñaareel bi mooy bul jaamu kenn ku dul yàlla bul jaamu kenn ku yàlla bopp ñetteel bi mooy bul nangu bul reconnaître geneen jaamu bus di jaamu keneen ku dul yàlla bul nangu kenn ci ñaari koo xam ne kii day jaamu keneen ku dul yàlla bul ko ne mukk li ngay def baax na ko nangu koo xam ne kii itam day jaamu yàlla waaye li mu koy jaamoo nekkul ci alquran nekkul ci sunna bul nangu ne mukk li muy def baax na nekkul ci alquran mbokk yi nekkul ci sunna yàlla waxu ko sayiduna muhammad alayhi salatu ko santaane wu ci kanamam mu ne noonu la waaw mbokk yi loolu wax dëgg yàlla lu muy nekk ci ci diine bokku am lahum shurakaa'u shara'u lahum min ad-diin min ad-diini maa lam ya'zan bihi loolu bu ci biir gi mu ngi see bokk kon boog nan jàpp ñetti tomb yooyu bu njëkk bi mooy tawxidu uluhiya mooy nga jaamu sa boroom nga jaamu sa boroom te jaamu ko ca la ko waxee ci alquran ak sunna ndaxte yàlla danoo waxut leneen lu bokk ci alquran ak sunna يلا ينور دم ولي يلا ينور دم سري يلا ينور دم عالم يلا كن ليوني مولي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من موم مو أم مقام يلا وحق موم وحق نوس وحنا منك بندنا بايته الله بوك صحابة أكاد عيني بندنا موخن لا لا موي سنة لش القرآن موابوك بولا سنة كما نجامو يلا سو بجي جامو يلا سلنا نبوكتك القرآن والسنة نلا لابن ويتلتو يلا سعبودية te tam li ngay def doo ci am dara kon boog jaamu yàlla ci alquran ak sunna moo jiitu ñaarut mooy nga bañ a jaamu keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala ko ñetteel ba mooy bul reconnaître te bul nangu geneen jaamu gu ñuy defal keneen wala sax ku ñuy defal yàlla waaye kenn jaaraliwu ko ci alquran ak sunna bu ko defee ñeenteel bi mooy sa bii nga ci yàlla dëkk nga di ko yaakaar sa ko moom dong nga di ko ragal sa ragal ko moom dong léegi léeg ma dégg naa man man jiw laa yaakaar waaw am na ñuy wax sëñ jiw laa yaakaar adduna ak alaxira am na ku mos a ñëw ci sam papa fekk sam papa defe naa wér ci at yi mu jii la mënu koo gis mu yónni ma ci moom ma dem ne ko ak gan de moo fi ñëw goo xam ne man xaw ma ko nii la tudd nii neen daal dafa am jaaxle goo xam ne ki yow dong la ci yaakaar xam nga sam papa lu mu waxa dafa na jooju yaakaar tas rek ci gën jooju yaakaar tas rek ci gën yaakaar kay daaw la jëm ci yàlla booba daf daf ma doon jox man mii dëgg tawxidu uluhiyya yaakaar da ngay yaakaar yàlla te yaakaar ko moom dong ragal da ragal yàlla te ragal ko moom dong ndaxte li tax moom yàlla dong moo yoon la rek moom moo la mën a jëriñ kon moom rek mën a mat a yaakaar moom dong mën a lor moo la mën a lor kon moom rek moo mat a ragal loolu ñu ngi ko jàngoon ci tawxidu rububiyya kon boog sa xol bi bokk na ci wéetal yàlla ci uluhiyya sa xol bi dëkk ci sa borom xol bi bu mu dëkk bul foog xol bu mukk ko raxas ba mu set nga poosu ci ak sëriñ moom ngay noyyee sa dara di bëgg daanu moom ngay tudd boo dee loo jaaxle si xal ci moom lay dem loolu bu ko def xol bi nag ci yàlla nekk bu ci def kenn ku dul yàlla sëriñ bi na la jàngal li yàlla wax na la jàngal li sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam andi waaye xol bi moom bu def lu dul yàlla bul yaakaar ku dul yàlla bu ragal ku dul yàlla loolu ci yàlla dong lay bàyyi ko bu ko defee kon boo boolee ñeenti yooyu loolu mooy wéetal yàlla ci uluhiya mooy tawxidul uluhiya wala tawxidul ubudiya ñeent yi bu njëkk bi mooy nga jaamu yàlla te jaamoo ko alquran ak sunna mooy ndax loolu la la sant ñaareel bi mooy bul jaamu keneen ku dul yàlla ñetteel bi mooy bul reconnaître jaamu geneen gus di jaamu te jëmale ko ci ku dul yàlla wala ñuy jaamu yàlla te jaarale wuñ ko ci alquran ak sunna juróomeel bi mooy sa bi na dëkk dàkk ci yàlla nga di ko ragal di ko eh, yaakaar te sa xel ne nag moom ci lépp lu la arrivé aha suñu borom moo nu ko jàngal ba def ko ak ñaan goo xam ne sayyidina Muhammad da ko daa ñaan sallallahu alayhi wa ci buy waaj a tàmbali julli ci ja ci ñaani istiftaxi la boo qul inna salaati qul waxal yow muhammad alayhi salatu wasalaam nga xam nga ne ku ñu yëpp dugg nañ ci neel inna salaati naka sama julli wa nusuki ak sama rendi wa maxyaaya ak sama dund gi lépp lépp lépp wa mamaati ak sama dee lillahi ñeen na yàlla dong laa sharika lahu kenn bokk koog moom wa bi dalika umirtu taman loolu lañ ma sant jeex na loolu leer nañ la alquran la قل وخل يوم محمد وخل يوم جلد بنال إن صلاتي نك سما جلي ما جلي ونسكي أكسما رندي ومحياي أكسما بندي لب لب أكلي مؤمن لب وماتي أكسما جاء لله سحنين يا الله دمي لا شريك له مم بوكو بوكو كم مم رك موكو مم وبذلك أموت صلى الله عليه وسلم وأنا من المسلمين كما عند بوكتي يجيب بلوكي الله سبحانه وتعالى كن بغير يا الله من يجيب بلوكي الله yal na yàlla mi ñu jox ko suñu dund lépp te dañ ko cee boole kenn aha Sayyidina Ibnul Qayyim bi muy wax ci nuunu yaam bu gudd boobu nga xam ne ëpp na ñetti téeméeri bayit bi muy wax naan kun waaxid li waaxidin kun waaxidan fii waaxidi li waaxidin kun waaxidan fii waaxidi waaxid yu bëri yooyu mooy kenn rek kenn kun waaxidan sa lépp na nga ko dogale def ko benn dank muy lenn bu ko tasaare loo xam ne da nga koy jëmale ci yàlla léeg nga jëmale ko ci sëñ bi léeg nga jëmale ko ci tariax ba bu biyee nga dem kàbbatu yàlla ñaan ko bu biyee nga dem ci sëñ ba def na day faj sa aaju nga yaakaar ko ñaan ko wala nga woo ko fu mu nekkul bu biyee nga dem sëñ tariax ba mu lay dindal ay ay ay saafara ci ay ay téere ak ay ay ay jëlay wàggal ak dina dugal xalwa loolu ak tasaaroo la kon waax dem dajaleen seen lépp say wax ak say xalaat ak say jëf lépp daf ko muy benn dank li waaxidin nga jëmale ko ci benn buur képp boo xam ne mooy yàlla moom rek moo mën a loot moo mën a jëriñ moom dong moom moo ta jaamu fii waaxidin te jaarale ko ci wenn yoon bu ko jaarale mukk ci ay yoon yu bari jaarale ko ci wenn yoon te mooy mooy siratullahi almustaqim mooy kitaab ak sunna kun waaxidan doonal jenn jëmm sax sa nam-nam lépp lu jëm ci lenn lépp loo def bu ko def ngir ngistal bu ko def ngir bëgg ku la gërëm bu ko bar def ngir bëgg ñu ne jàmbar loolu lépp ko nekkatoo waaxit sa iraada ak sa ak sa jubluwaay na nekk benn jubluwaay te na nekk yàlla dong li waaxidin na nekk yàlla dong fii waaxidin te lépp looy def nga jàll ko ci kitaab ak sunna loolu mooy kun waaxidan li waaxidin fii waaxidi ah, mu ne ami lan أعني سبيل الحق والإيمان ما قلت في واحد يوم دقة ما القرآن السنة من قال والإيمان أقدم يا الله ينسي على تك سمعين مجاب في جنود دل سيسم توحيد الألوهية موي لا إله إلا الله أم ولا بق بق نتيم أم لا إله إلا الله موي أم كم كل إله فأهم نتيم سوك جامو دينا لجرن درة فسوك جامو دينا لواني درة كدل يالله yàlla nag moom mooy buur bi nga xam ne soo ko jaamoo mu jëriñ la te soo ko jaamu ñàkk nga jaamu dañ ci am fitna ak adduna ak alaxira aha baatu laa ilaha illa allah nag mooy baat bi nga xam ne bu ñëwee day yemale nit ñi yëpp am nga yëpp ñëpp ay yem ñëpp ay jaam lañu li comme ni Seydina Amar waxoon buur boobee ne antum sawaasiyatun ka asnaanil mus yéen yéen képp ñi bañu peñ bañu ak benn suuti ci morom ma na xam gën naa di jaam yi daa digg yi sew waaye loolu ci suuf gi la daa kaw gi yëpp a yem di gerte gi nag xëy na mooy ëppante wërsëg wala ëppante xam-xam wala ay pexe waaye ci kaw moom bu tey ngay yëpp a yem ay jàmm lañu aha laa ilaha illallah buñ ko dundee du amati ci biir nit ñi ñuy ñuy def te may use di ràññee ko ci kaw ñu ci def mu ngoor di leen di leen jéem a sut mbaa ñu di loolu ay nappaate rek la ak ay naxaat aha bu ko defee nga gis kuy yëkkati di réew ci kaw nit bi ndax lan aha ndaxte man eh, eh, nangam laa sant aw sant woo xanaa ba dem naa ngi déglu benn kasetu sa ñaar bi benn seedeel yal na ko yàlla benn képp ku ci bëgg a waxtaanee sa ñaar bool naa la ak Maodo Diagne am na ci ay waxtaan yoo xam ne la mu ca wax ni mu màkk ak mbag mukk wax ndax ko waxee ngeen ne ma yow nii kat xanaa la sa ñaar di waxoon bokkut li ngay wax waaye dem ngeen ci Maodo Diagne mu may leen waxtaan li xam ne sa ñaar di ay waxtaan lu ñu ci bëgg rek am na ci aw aw waxtaan wu mu ne ah Mouadia am mbooloo aw sant aw sant woo xam ne wala famille boo xam ne ku ca bokk rek yow da nga dem aljanna moo loolu moom fu mu nekk ci alquran loolu laa laaj fu mu nekk ci alquran su ñaari moom yàlla da ko mayoon mu mën a jàngale kitaab ak sunna mën a jàngale tawxid ci tabjin yu ma sëkk te la mu war a wax lépp dana ko wax yal na ko yàlla fayal lii nii di wax ci lépp amu ci lenn lu mu jéggaani fenn mosunoo jàng ci kenn lenn lu dul ci moom yal na yàlla fayal nu ko te yàlla may nu ñu jaar fa yàlla rëbbi fa sayyidna Muhammad jaaroon moom day foofa la jaaroon sallallahu alayhi wa sallam mu ngoog ku jaar feneen tey te askan ci si ñaar yaa ko defal sa bopp waaye moom dafa tegoon tànkam ci sunna tey tam fa la jaarloo ak njabootam ñëpp yal na yàlla may tawfiq ñu jaar bu ko defee kon bu laa ilaha illallah ñëwee day effacé mboolem différence na ko diggante nit ñi kenn du wéy ci kaw nit ñi wala nga yëkkatiku ndax doo wéy sa maam sëñ Adé Fall maam Touré laa sant kon nag maa gën ci sant Ndiaye maa maa gën ci sant Diop foo ko teg aw sant du dara lu muy lu ñuy xam ne ak tamit mu ngoog aha bu ko defee yëkkati ku ci kaw nit ñi ngir aw sant wala yëkkati ku ci kaw nit ñi ngir alal joo am amal ak nekkal milliardaire sama aw ma ngir lu ëllëg taxul nga gën ma kenn du gën a nit alal kenn du gën a nit ab juddu kenn du gën a nit mbooloo wala xel كان قدامي ميت ماي بريزيدان ولا رئيس ولا ما مينيستر ولا ما دكتور ولا أي شيء حنا لو دربتي تحد ميت نقول كان قدامي ميت كان أواته نقول كذا يو دعاء ويح من دما نيو كنا يا مقدر لولو أموت أموت كلينك قدامي ميت لأن ركلا ما أغرق يلا ترى كذا تخلنا أها ما تقبل لا إله إلا الله ما يبعد لي خلنا ما كلمة التحرير ما يدير نجني جلل انت مي جابو كدل يلا mu ngoog yóbbu leen ci ñi jaamu yàlla dong libéré leen ci ñi jaamu seen morom yi jaam laa ilaha illallah ku gëm ko di ko doxal doo doo doo jaamu sa morom jaam mukk mi nga xam ne ki ñu war a jaamu kenn la te mooy yàlla mu ngoog bu ko defee kon ñu xam ne eh, laa ilaha illallah dafa ñëw ngir taxrir dalay libéré ci bépp jëpp yàlla eh, tappale yàlla tappale yi bari nañu ah, dinaa ci tudd يلا تفلي أمنتي نو خم أي كيف يجينا لي يو خم نو تهو تهو أي يلا تسمي خل أسمين الجاتة لا دني بدو سير يلا يلا تفلي بوك نجي نتي كيف أدنى يو خم نو دني لي دني بعد جار لو تفر فر ولا كأي تخت سير يو خم نو بكتت لا يلا رد سوال دخل ريو ولا سوال دخل نو ولا ولا إقليم ولا يمنون سرين كوي جات تخت بعمر دولة forcé ko nit ñi nag ne lii moom moo war a am ndax nangam ci nangam wala ay xeeti réew yu am doole yoo xam ne dañuy jaar ci suñuy gouvernement di ñu imposer di ñu coloniser di ñu coloniser ci kaw doole di ñu jaarloo ci yoon yoo xam ne bokkut ak yoon ñu war a jaar ci wàllu politique sans borom yàlla ak muy wax ci laaye joo xam ne jii bi mu ne ittaxadu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaba min dunillah mu ne yahudi ak nasraan yi dañoo defoon seen axbaar yi te mooy seen sëriñ yi سرني يهودي جاي أحبار سرني يهو سرني نصراني جاي رهبان أحبار يجي رهباني كابرم يا الله نينا دنيا جابون سر سرني يدس لين أي يا الله جلين جام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دفع مفدي جان الله يجوجو سك أمنا أراب بنتي يتم بوخم نوم أبن فرامي سيتم كيف لون في يوم النصراني ما يعودي ابن حاتم عودي دوتي جلائي جكرم أنا أراب dafa wax sayidna muhammad ne ko ah sallallahu alayhi wasallam ne ko ah ñun kat nag wax dëgg duñ jaamu suñu sëriñ yi duñ jaamu suñu sëriñ yi def def leen ni ko sayidna muhammad ton du ko di di di di xolay déggee yonent bi jàng ne ittaxadu ahbaarahum wa ruhbaanahum ñoom yahud yi ak nasaraan yi dañoo jàpp seen sëriñ yi def leen arbaaban def leen ay yàlla ba min dunillahi bàyyi si yàlla min sàkkoon wal masih xam ne mariam masih tam dañ koo def yàlla di ko jaam bàyyi si yàlla mi leen sàkkoon Xuday ne ko ñun nag du ñu jaamu suñuy sëriñ jaamuñ suñuy sëriñ kat Seydina Muhammad da ko ne alayhi salaatu wassalaam ndax daaw ñu leen sant loo xam ne bukkut ak yàlla santaane ngeen topp leen ca mu ne ko ah kay mu ne ko ndax daaw leen daaw ñu leen tere loo xam ne yàlla da koo santaane ngeen topp leen ca mu ne ah kay mu ne ko loolu mooy jaamu loolu mooy jaamu gi kon nag ndekete boo toppee sëb sëriñ ñu lay def looloo xam ne bokkut ak li yàlla wax ci alquran ak sunna nga topp ko te wala mu lay tere loo xam ne yàlla da koo santaane ci alquran sunna nga bàyyi ko ndax sëñ bi ko tere kon kenn dëkk yaa yaa ngi jaamu sunna moom mi ngi ci téere kenn moomu kenn moomu ko te itam am na su sa ñëw xam-xam di toll da nga koy xam ni ko ñëpp xam soo ko xamee xam ne li moo xew ci réew mi du yëpp ci sëriñ de du yëpp de déedéet ku ku ku ku ku généraliser da nga am na ay sëriñ yoo xam ne seen ñàkk xam alquran ak sunna ak na ci dañuy gis ak jullit muy def lu Seydina Muhammad daan def alayhi salaatu wasalaam mu tere ko loo ci xam ci loolu sëñ bi xamul loolu sëñ bi la mu xam mooy acte yi am ci ab tariqaam waaye sariya bi léegi ñun ñëpp dañ ko fee bàyyi ñëll kenn ku nekk ci ñun nekk ci tariqaam di ko jàng di ko jàngale di ko leeral nit ñi ba léegi fàtte na ma sariya bi yëpp la sama sëñ ba bàyyi wax sëñaa bi mosa gàmm mosaan ñëw borom xam-xam yi ñëw mu ne kat bu kenn ne sama sëriñ nee na mbaa sama maam nee na ndax bu kenn ku nekk yëkkatee waxi sëriñam kon waxi sayidna muhammad day réer alayhi salatu wasalaam foofu la réew mi toll léegi waxi sayidna muhammad réer na ci ñu bare bare bari ndax suñu waxi sëriñ yi ñu jàpp ci weer koor def ko ay diine sëriñ yi jàpp ne def la yow leen jaam loolu lépp mën nañ ko jële ci ittaxadu ahbaarahum wa ruhbaanahum arbaban min dunillah ittaxadu ittaxada ahbaarahum wa ruhbaanahum arbaban min dunillah mu ngoog loolu la suñu borom yàlla wax ci alquran ittaxadu ahbaarahum wa ruhbaanahum ittaxadu ñoom nasaraan yi jàpp nañu ak yahudi ahbaarahum seen sëriñ yahudi wa ruhbaanahum ak seen sëriñ nasaraan yi arbaaban def leen ay yàlla di leen jaamu min dunillah baay baay si baay si yàlla mu leen fekkoon loolu yàlla ci yàlla waaye ku dem lee am na ci ñun ñu koy def ci yëguñu kon boog il faut ñu settantalaat li ñuy def ak li ñuy wax gën ko dëppale ak li yàlla wax ci alquran gën ko dëppale ak li Seydina Muhammad wax ci sunna sallallahu wa sallam Seydina Muhammad li mu wax ak dayu sërëm moom mu ko ci ordinateur am wala ci kàggoom déedéet mi ngi ci Bukhari mi ngi ci Muslim mi ngi ci Tirmidhi mi ngi ci Abu Dawud منك النسائي منك ابن ماجه منك ابن خزيمة منك ابن حبان منك طبري منك إمام مالك منك موصى دم لين تبتيري يا كاي تيري يجر نبض ذكر تيري حديث يوي يجر لكن يجن لك أكل واري يجف فرجن خمن فرجن بجاس أقام السنة يجن يال جد لك جندي وعليه جسمه تبدأ نار إلهي ak sëriñ buy jaarloo nit ki ci lu bokkut ak alquran ak sunna ak nitu nguur buy jaar wala kilifuk adduna buy jaarloo nit ci lu bokkut ak alquran ak sunna mu ngoog gannaaw ñaari yàlla yooyu ñaari yàlla tappal yooyu wala ñaari xërëm yooyu am na yeneen wu leen ñetteel te mooy bakkan bii bakkan ak bànneex sans borom yàlla moo ma xamal ne bakkan ak bànneex dina dem ba doon yàlla nga di ko jaamu xoolal mu ne araayta man ittaxada ilaahahu hawaahu أفأنت تكون عليه وكيلا فعبر ذلك لما وقت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نك الله ما لك يا خم نكيد فدف دف بن يا خم أكبر كنم دف سيال لجوك جام كوكا كوكا من ال كوكا دم كمان وشيلو كوكا كوكا منو كجوبل خمال نك كونن جمانا ون دد مجيسكو نونو كجار كبدف كفت بكنم أكبر يا خم دف وخيرم لو كمان وح مجلس لمن يقول لو كجيل مك يلا يلا مسجلون أها kon boog loolu lépp dañ ci jële ne baatu la ilaha illa allah li muy tegtale moo di nga gëm yàlla moom dong te jaamu ko ca lamu la ko sante bañ koo jaamu ci leneen lu bukkut ak lamu la ko sante bañ koo bokkaale kenn bañ a jaamu kenn ku dul moom aha te itam madlulu la ilaha illa allah day ànd ak nga weddi bépp taaxuut taaxuut mooy lépp loo xam ne day ware ni nit ñi ba duutuñu jaamu yàlla wala duñ ko jaamu ci yoon yi nga xam ne moom la rëdd muy siraat al mustaqim te mooy kitaabu sunna képp koo xam ne ndax lépp loo xam ne day empêché nit ki ba du jaar dundam ci alquran ak sunna loolee taaxuut la tudd loola kooka da nga ko war a weddi te da nga ko war a jàmb te da ngaa war a jaar rek ci yoon wi la yàlla jaarloo ndax mooy tax boo léegi nga mën a am jàmm moo tax nga mën a dem aljanna moo tax nga mën a mucc safara yàlla ci yàlla dimbali aha bu ko defee nag wax jii dañ cee war a dégge ni bu ne war naa dégg ci wax jii ne yow ma topp min daa kon mu mën a doon nga topp ko ci lu bokk teg li la yàlla sant min daa kon mu mën a doon mu jaar loola ci lu wuuteeg alquran ak sunna kooku ku mu mën a doon la moo xam sa ndey la moo xam sa jëkkër la ndeem jigéen nga moo xam nga مواخم تكسرية مواخم برام خمخم لا مواخم الأمر يولا ولا مغاب هم من الدول موقع تطفى بك هنجا جاد القرآن السنة سلوبا الله تطفى ده جاد ملتا دقر ملتا رب تولتا ملوي دقل مغلي دقل شي شرك في العبودية أه. نخطى الإمام أحمد أن الحديث بجارة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نعمة لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى كم دتصف من دافع من الدين بطه نغموين يالا نجل نجل تخم جنة عبارة بابو جان من كتل لخذري لخذري سير بني جك جان كتلق دان تشك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كم دتصف كن دين بطه نجل نجل أجي دين جي كن بطه لخذري دان كو جان كتلق نون كبو باقبا waaye lii ñu ngi ko jële ci sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam kon boog ñi nga xam ne dañoo yaakaar ne jigéen moom lépp luy kontaan loo jëkkëram rek mën na koo def am na ñuy wax naa jigéen moom bu ko jëkkëram ne xeesal sañ naa xeesal ko jëkkëram ne yokkal sa kawar sañ na ko yokk ndax ginnaaw moo koy kontaan loolu loo ko yóbbu aljanna loolu erreur la tey tan wérut li wér mooy sa jëkkër yow ndaw si bu la sante loo xam ne yàlla dala koo tere wala mu tere la loo xam ne yàlla dala ko sant sañutoo ko topp boo ko toppee ngeen bokk dem naari jànnam ab sëriñ noonu way jur noonu mu ngoog aha bu ko defee kon dafa mel ne leeral nanu ci gàttal bu mag sëkk leeral nanu importance bi nga xam ne wala am solo bi nga xam ne moom la tawxidul ibadati am solo leeral nañ tam lan mooy tawxidul ibada wala lan mooy tawxidul uluhiya léegi mu def nag nan lañ koy jëfee nan lañ koy jëfee nan koy jëfee mooy nu xam li maanaam ibada xam ko buñ ko xamee ñu jëfe ko maanaam ñu xam ñu xam lan la yàlla dëgg ku ko ci jaamu ñu jaamoo ko noona te jaamu googu nag ñu bañ koo defal keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala لول ماي جفة بني جفة توحيد الألوهية توحيد الألوهية كوبا جفول بغير مسافرة لك يالا مولا فاتح مولا بوم فجينا لدكا فيالا مجسده نبو يوم القيامة نيب نيب لني جات كده في عالم مليان دف تانك نان أو سرين بصور يوم جدير يبوز من الفجكر يوم جات يوم القيامة كده في عالم مليان دف دف تكم نان دف تانك نان جو نيب نيب كده من قدرنا سويه يبقى باي أكسيال ñu def yaram mu neen def tànk fekkum neen te kat doo doo doo leen mën a doo leen kala xool sayidina aïsatu radiallahu anha bi yonent bi waxee loolu bi bi yonent bi nee na nit ñëpp dañ leen di dekkal ñu def yaramu neen di doxe tànk neen su ne aïsa da ko laaj ne ko waaw dañuy def fekkum neen di xoolante sayidina muhammad ne ko alayhi salatu wasalaam ay kenn du kala xool kenn kenn ku nekk da ngaa tiite tiite tiit ba mel ne sa sa xol bi boo lambee sa fut daj ko ndax tiit nit ñi dañuy mel ne lu mànd te mànd wu ñu waaye dañoo tiit su boobaa kenn tël sa xol kenn moo tax Seydina Muhammad ne ko ah, mbir mi mu gën naa réer loolu kenn tawul kenn kenn du xool kenn mu ngoog bu ko defee kon yàlla bu décidé loolu mooy bëgg nga xam ne yaa kooku yaa mooma yem ci àll yom lu xiyaat yom lu xiyaat koy xanaa ndaxam dina am ñu yàlla teral yàlla ci yàlla boole waaye nag bala ñu koo xam dañuy dikk jaar fu ñu demee ñun ku dekkee rek yaram na nga dekkee tànk na nga dekkee yàlla ne sell sa mer waaye kilifa gu toll na yàlla bu meree boole noppi yow li nga jaamoon yàlla lépp xamoo yàlla nangu na ko mbir xam nga ay bàkkaar yu bari yoo def mbaa ko xamul malaaka ñoom xam nañ ko te digg nañ ko attan nga yaa jëm ñëpp yaa yees ñëpp la nga def lépp te fekk ak carnet gisagoo carnet ba waaw moo borom bitig bi ñu war a rek la te moom xam na ay njubadi yu mu def ci bitig bi xam na yu mu manqué te xamagul ndax dana am bénéfice kooku bu tëddee dana nelawa du nelaw boo dekkee yaag sa sëriñ ak sa ndey ak sa baay ak sa jëkkër ak say xarit yéen ñëpp a yem benn classe jax ak ciit ak def yaramu neen ak tànki neen yàlla nar nar mu musta nar mukk ba daf ne cell nag kenn xamul fay mujj kenn ku nekk naa saa bopp laatal saa bopp laatal naaj yu tàng jër ñu wàcce jël ci ba mu jógee bopp yi ba ñaq li koy xët kenn ku nekk ñaq ñaq ñaq ba fa nga taxaw taa akum ndox sa fekk sa ñaq rek yàlla ne sell sa daa mel ñu dem ci yéen tala aadama ne ko aadam yaay abul basar yaay maa ngi ñu ñëpp waxal ak suñu borom yàlla mu atte nit ñi koy dem àjjira xam koy dem safara xam ndax yëf yi metti na kumpa gi rek moo jëkk a metti kumpa googu yëpp fa ca bokk amul kenn koy dem waaw kon te loolu mooy maanaam bala noo jotal àgg ci di rab na mën na bu ñu weesoo foofu nag ba rab na kat bu jëkk bi te mooy sayyidina Muhammad alayhi salaatu wa salaam julli julleem googee yàlla fonk ko lool di ko wax siggil waxal li nga jox la ko laajal ñu jox la ñaanal ñu nangul la mu wax mu wax la muy wax gannaaw bi nag la ñuy door ndax jiw mom mom ndax dina rabbe am du rabbe am dina am ni rabbe waye waaye kuy rab itam dina nan yow mii diga rabbe waye nak waaye nag naan nit ngay rab te jiw ak jiw ak jiw waaw man dal ladhi yashfau indahu illa bi izni ana kan mo ni ne na law si kanamu yàlla nan dalay rabbe rab ne te amoo si ndigalal yàlla kenn ñu ko mu ngoog su defee kon loolu li muy sotti rek mooy dina wara a ànd ak suñuy ndaw ak suñuy baay ak suñuy jëkkër ak suñuy jabar ak suñuy sëriñ ak xarit suñu borom xam-xam جابوا الإله الواحد الذي لا إله إلا هو يلم في هذا الدين سن كويت دون سجامكو كويت القت توحيد العبودية الألوهية والله خلا دني أم دكترك دكتيف نك نيتيف ما دكتم الله اخر نقضوا دل في أبن مك يلم في هذا مسلم أها kon boog bu fekkee wéetal في ci ubudiya mooy mi ngi tàmbalee ci nga jaamu ko xanaa da nga xam luy jaamu ah xanaa war ngaa برام خم خدي تعريف من جامع أمنا أي تعريف يبقل في وقت في ألفاظ ومعنى من لمنا نقول بدنا برام برام تفسير القرطبي الإمام القرطبي في فرقة أخرى في مغلق مملو وقت جاب منا نانا جاب دار موي دا توف كين توف عندك توف من لول دار كو كو دا فجان في جاب كيف كو توف topp mutlaq boo xam ne bii la mu lay lu ma la wax doo ci teg baat te doo ko seet doo seet mukk doo seet tax sa loro mbaa sa njëriñ doo seet ndax am na keneen ku ci d'accord mbaa ku ci d'accordul lépp lu la sant da nga ko ciy topp topp mutlaq boole ko teexlu ko kooku yaa ngi koy jaam loolu wax moom alimaam Qurtubi su tafsir ah Sayyidna Ibnul Qayyim nee na moom mooy nee na jaamu mooy topp mutlaq gu amul charte topp goo xam ne daa am koy topp topp mutlak goo xam ne lépp lu mu la wax nga def bu la ne woon demal daam seen ba sax nga dem daam li mu la sant nga def lu mu la tere nga baax doo ci seet lenn boole ko ak cofeel goo xam ne ak mu mbëggeel goo xam ne moo gën moo gën a foor mbëggeel bi nga bëgg sa ndey ak sa baay ak sa bopp ak seen si li ñett malaaka yeeg danañ si yeeg ñëpp moo la gën a si ñoom ñëpp koo defal loolu yaa ngi koy jaam mbëggeel gu amul dayo ak topp gu amul sax mooy mooy jaam ما تخمو وقتنو نيامبا وان سيدنا ابن القيم ونوى عبادة الرحمن أه غاية حبه أه مع, مع ذلي وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان من جامو يلا جامو يلا ما يبقى يلا بقى الغوحة من جي أمول سمو يم بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا sopp gi gën a mag ci sopp yi yooyu ñaari xos bu ñooy jaamu yàlla yal nañu yàlla may ba nu jaamu yàlla aha bu ko defee ñaari taarif yooyu ñaari borom xam-xam yooyu wax mën nañ koo boole ba gis ne jaamu yàlla mooy nga topp yàlla topp goo xam ne doo ca wut jafe naag yomb na doo ca wut bëgg naag bañ naa doo ci wut ni koy def ni dinaa ci ànd ak kenn du ma ci ànd ak kenn doo ci wut jiw ak na diw ànd ci da nga koy topp rek lépp loo xas xam ne lii la yàlla bëgg da nga cay sóobu te da nga cay nekk doo déglu kenn doo xool kenn mooy topp gu am lu dayo boole ko nag nga bëgg yàlla lool ba yàlla gënal la sa bopp ak sa ndey ak sa baay ak moo leen ni ngaa fan yi tey itam nga nga nga di ko troxlul loolu mooy bu ko defee ay ndigaleen yépp nga di ko jëfe yàlla am na ay ndigal yu mu joxe nga xam côté di ko jëfe am na ay mbir yu mu tere nga xam côté di ko sori loolu boo ko defee mooy mooy yaa ngi yaa ngi jaamu yàlla kon boog jaamu yàlla ci taarif bi mooy nga topp yàlla topp mutlaq goo xam ne amul fu mu yem topp goo xam ne bu la yàlla ne defal da def doo seet sedd naam tàng na doo seet guddi naam bëccëg na doo seet yomb naam jafe na doo seet mën naa ko mënuma ko boo ko mënul yàlla tegul ko waaye boo ko mënee yàlla door a koo sant danga koy def doo fekk nit ñi daan ci ànd am duñ ci ànd daañu ma kontor am duñ ma kontor dama neex saa ndey ak saa baay ak saa sëriñ ak samay xarit ak samay jabar ak samay doom mbaa sama jëkkër loolu lépp doo ko fekk ginnaaw xam nga ne lii la yàlla wax danga koy def bu ñëpp àndoon jàmm ko ci def leneen yow danga koy def topp gu mel noonu ànd ak nag soxlul yàlla soxla gu mat sëkk ànd ak nag bëgg ko mbëggeel borom wala xeeti mbëggeel yi te xam ne am na yu mu santaane moom yàlla bëgg ku ko sa jaamu nga dem xam ne yooyee mu santaane am na yu mu tere bëgg ko bàyyi nga xam yooyee mu tere la mu santaane nga di ko def la mu tere nga di ko ba loolu mooy maanaam yaa ngi jaamu yàlla yal nañu yàlla dimbali ko ni mu war yàlla baal suñuy bàkkaar su ko defee bëgg yàlla rek ngay bëgg bëgguk mbut la bëgg daa bokk ci xeeti jaamu yi yàlla rek ngay bëgg bëggub mutlaq ba tax na keneen koy bëgg di nga ci sartoon te ci mbëggal googee ñaari sart bu jëkk ba mooy doo bëgg mukk lu yàlla bañ doo bëgg mukk lu yàlla ne lii bañ leen ko doo bëgg tam lu yàlla bañ mooy lu mu lu doo ko bëgg kon boo sa bëgg am na ñaari sart bu jëkk mooy la ngay bëgg day fekk muy lu la yàlla bëgg loo mu ngoog yàlla def am na yu mu bëgg bëgg loonu ko yàlla bëgg na sa sa ay jëmm ak ay mbir ay jëf yàlla bëgg na yonent yi nga bëgg yonent yi bëgg na sayidina muhammad alayhi salaatu wasalaam yàlla nee na nañu sayidina muhammad gënal suñu bopp ak suñu leer suñu baay loolu yonent bi moo na ko jottali sallallahu alayhi wa sallam ñu bëgg yàlla bëgg li yàlla bëgg bëgg yonentam yi bëgg sayidina muhammad alayhi salaatu wasalaam te mu gënal na lépp li yàlla bind bëgg itam jullit yëpp bëgg borom xam-xam yi bëgg sëriñ su baax si sëriñ su baax si nga xam ne dañuy jàngale alquran ak sunna dañ leen a war a bëgg ndax suñu wayjur lam ci diine bëgg nag jullit ñëpp ab jullit day bëgg mbokkum jullitam waaye kii ab jullit li ngay ab jullit nga nga ne bëggoo ko ndax baatum sàmm daf maa tooñ daf maa bañ daf may daf may rambaaji baa moo tax xam ngeen ne maa ngi ko doon tawat ci àjjuma ji passé ak noonu gu ci dëkk bi ci diggante ñen nag loolu mat naa wala nga ñàkk bëgg sa mbokkum jullit ndax mbaatum sàmm moom bokku ci sëñ bokku bokkuñu bokkuñu sëriñ ñu tariqa kon nag man du ko bëgg ah loolu kenn sañu ko képp koo xam ci yàlla bëgg loo ne la ko da koy bëgg lan tadxulu jannata xata tuuminu wala tuuminu xata taxaabdu sayidna muhammad nee alayhi salaatu wasalaam du ngeen dem àjjana mukk te gëmu leen yàlla te seenu gëm du mën mat mukk te bëggantewu leen kon nag il faut ñu bëgg jullit ñi bëgg yàlla bëgg li yàlla bëgg bëgg te ni yàlla bëgg ci ay jëf ak i bala ya mu bàyyi ya mu bëgg ko bàyyi nga bàyyi ko la mu bëgg ko jëf nga jëf ko lu demee ne bëgg alquran di ko jàng bëgg julli bi dem jàkka di lu bari mu ngoog bëgg diine islam mu ngoog bëgg sunna sayyidina muhammad alayhi wa sallam ci tënku yooyu ay mbir la bëgg yoo tam nga bëgg ko mbëggeel boo xam ne bii da nga koy bëgg daal day fekk yàlla moo la ko sant mbëggeel li mu wax gon yëpp mbëggeel la goo xam ne yàlla da koo santaane te daa bëgg ko def am na it mbëggeel yoo xam ne yàlla da koo daganal kon mën nga ko def yàlla daganal na nga bëgg sa ndey kenn la ko tere ndax sa ndey da laa bëgg da ngay bëgg sa baay da ngay bëgg sa sëriñ da ngay bëgg sa xarit ki la jàngal alquran da nga koy bëgg ki la jàngal diine da nga koy bëgg bëggal sa borom kër bëggal sa soxna sayyidina muhammad alayhi salatu wasalaam dëggu na si ñee aysa loolu kenn tere yi waaye nag mbëggeel googu moom gu dagan la waaye nag am na sart sart ba mooy bëgg goo bëgg mi ndaa fan yooyu bu mu tax mukk ñu man laa jaddloo alquran ak sunna mbëggeel goo xam ne dam tey bëgg mi mbaaxam ba mbëggeel gu àgg ci ñu laa jaar loo ci bu mu ko teg ci yàlla jaar googu mbëggeel ëpp na soxna boo xamee ne bi yàlla daa santaane ku muur aw yaram te daa tere ku xeexal te daa tere ku yokk loo bëgg nga na fa soxna noo ko bu fi xeesal bu fi yokk seetam tàngal sa yaram bii jël yàlla bëgg bu la bu la bu la bu la bu la njaay teeroo bëgg laa bëgg laa jaasi euh, sentiment bëgg laa woon ne daal dag maa moo tax nee ko bëgg naa la waaye yàlla ma la gënal bëgg naa la waaye diineem jéem a la gënal dañ ciy jaar mbaa ñu jëf jëflante ko mu ngoog da ngay bëgg sa soxna waaye yàlla da la koy gënal diine yàlla ji da la koy gënal sayidna muhammad da la koy gënal alayhi salaatu wasalaam da ngay bëgg sa doom bëgg sa baay waaye sunna sayidna muhammad da lay gënal sa ndey ak sa baay ak sa doom ak sa lépp loolu da ngay bëgg sa përiñ waaye nag sunna sayidna muhammad da da la koy gënal loolu charte la ci mbëggeel booy bëgg mi ngaa kon na fekk loola ngay bëgg ginnaaw bi ngaa xam am nga ca ndigal yàlla joxewul ndigal ci ku bëgg uh, ay xërëm yàlla joxewul ndigal ci ku bëgg sàngara yàlla joxewul ndigal ci ku bëgg yàpp mbaam yàlla joxewul ndigal ci ku bëgg riba yi yàlla bëgg ku leen bañ da nga leen di bañ yi mu bëgg leen bëgg nga bëgg leen yi mu joxe ndigal ci bëgg nga bëgg ko waaye mais ci kaw sartu mbëggeel nga bu mu àgg ci mbëggeelu yàlla lii mooy sarti mbëggeel goo xam ne bii da nga koy bëgg keneen ku dul yàlla am naa mbëggeelu bi nga yàlla nag day gën a foor mbëggeel bi nga bëgg mboolem loo bëgg si ñu daa kon bu ko defee nag carte yi mbëggeel yi bu ci wàññi rek mu daal di dugg ci bokkaale ci ubudiya wala ci yàlla bu ko defee nag kon léegi mooy ñu tudd as lëf ginnaaw nee nañ dañoo war a euh, jaamu yàlla te jaamu yàlla mi ngi tàmbalee ci nga xam ay ndigalam yu mu sant ci kitaabu sunna te jëfe ko xam ay tereem te te ndigal yooyu am na ci yu aju ci xol am na yu aju ci xol am na yu aju ci cër yi loolu nag war nañ caa joxe ay am ci la duñ mën a lim lépp ndax dundi gi lépp lépp ay ndigal laa ci tere waaw kon dox ci yenn am ci la ci ndigal yi nga xam ne yàlla da koo santaane te mu aju ci xol yi xol yi war koo jëfe wala mu aju ci cër yi war koo jëfe bu ci nekk ñu laal ci tuuti aslif rek xam naa loolu ci biir xutba lay doon yal na yàlla may tal ak fekke ak tawfiq mu leeral loolu lépp ba ngeen jëf ko bu baax te lu ñu ci dégg yal nañu yàlla may tawfiq ñu jëfe ko ndax yàlla jéggal na suñuy bàkkaar wala xalaat nu maa dem aljanna yal nañu ko yàlla bool defal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu